salaamaaleykum chers internautes salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne nii yéen ñuy siiw chaque jour si la télévision Leral Leral TV dal leen ak jàmm ci deuxième numéro journal de la nag bi nga xamante ne nii ñu ngi koy def fi nga xamante ni mooy ci Fatick ci journal bi xamante ne nii mooy bi si deuxième si deuxième numéro bi nag ni ñuy tàmbalee bi léegi journal mooy li nga xamante ne nii mooy colloque bi ñu doon amal ci diwaanu Fibla thème bi nekkoon les politiques culturelles du Sénégal ak i défis ci boobee colloque nag ñi nga xam ne ñooy panélistes yi bëri woon na ay ponk yoo xam te ne waxtaan nañ ci ponk bu njëkk bi nag li nga xam te ne nii moo nekkoon ci wàllu patrimoine lañ doon waxtaanee ci ñetti pénaliste yi nga xam te ne waxtaan nañ ci ni xalaat yi wute nañ ki nga xam te ne nii mooy Mamadou Jean Charles moom mi nga xam te moom jàpp ni li nga ne nii moo nekk liste patrimoine yi nga jot nañ ko di ko wane ci réew mi jot nañ ñu xoolaat ko ndax nag jàpp nañ am na yoo xam ni dugal nañ ko di jot nañu jàngaat ko gën koo xoolaat moom moomee lañ leen di dégtal ngeen déglu ko ci moom xalaatam ci li mu gis ci li nga xam te ni mooy patrimoine bi niñ ko dugalee ak moom ban jàngat la ci am. waaw jàpp ma ne baaxul dama ne rek euh, soo xoolee liste bi essentiellement patrimoine colonial ngi si gis ak patrimoine boo xam ne diine yi ñoo ko indi muy islaam muy catholicisme muy euh, euh, jàkk yi jumaa yi ak itam église yi donc ça veut dire soo xoolee liste bi bu baax ak ak bërëb yi nit ñu doon xeexee soo xoolee liste bi bu baax. doo gis dara loo xam ne euh, suñu patrimoine ni tous les jours la moo xam ne nit ñi dañ koy dundee et cetera donc ça veut dire que peut-être ni ñuy classé patrimoine dañu war a xoolaat parce que am na wóor na ma ne tey Sénégal euh, xool ci séeréer yi rek seen seen seen seen kii yi seen tombe yi seen pyramide yi kenn du ko tudd mais malheureusement euh, c'est c'est c'est un, un vrai problème mais problème bi c'est c'est plus la définition définition bi ñuy joxe patrimoine parce que patrimoine rek du du rek li li lu ñu bind si ci kayit yi si décret bi mais mën na nekk loo xam ne nit ñi dañ koy dañu ñëw jël ko professeur Massène Sène moom li ma jàpp mooy li nga xam te ni moo nekk suñu wàllu constitution war nañ koo mën a gën a xoolaat ngir xool aussi patrimoine boobee nan lañ ko ci gën a def ngir mën ko ci gën a insérer ndax mu gën a am li nga xam te ni mooy jëmm moom aussi àdduna ci mbir mi ni dañ leen koy tegte rek moom aussi moom lan xalaat la am ci wàllu patrimoine bi ak ni mu ko gisee ak ci wàllu constitution bi ban place la ci patrimoine bi war a am ñu teewlu ko te ñëwaat. xam nga bu ñu nee suñu mbaax yi maam te maam yi jóge nañ fi. génn nañ àddina boo ne lii suñu mbaaxi maam la waaw ana moo toog léegi ne bu ngeen jaarul fi wala bu ngeen deful lii lii ak lii moo leen ciy fekk kan ku nekk xelam lay dem ku nekk xelam lay wéy ma ne bu fekkee dañu nekk ci réew moo xam ne dañu ne ah aada ak cosaan de amoon na fi mooy us et coutume wante loolu du liy doxal réew mi léegi ci biir république dañu ne lii ak lii bu jaaree ci loi yi ci constitution ci lay am doole nañ ci dugal li nga xam ne moom moo ñuy defar mooy suñu mbaaxi maam yi te loolu nekku ci ñuy fexe nag lu mu tuuti tuuti nit ñi xam ne soxlawul rek ñu koy waxtaane dañ ko war a jëfe kannaaw li nga xam te ni jot nañ ko ci am ci wàll patrimoine jot nañ koo xam te xam nañ aussi nu mu toll mais nag li nga xam te ni nii lañ war a gën a mën a def mooy ëllëg xool nan la ñuy mën a def ngir loole ñu gën ko mën a améliorer loolu lay xalaatu ki nga xam te ni mooy Ibrahima Wane moom coordinateur colloque bi mu aussi nekkoon modérateur bi moom aussi àdduna ci suñuy kàddu gannaaw bi nga xamante ni colloque boobu jeex na ñu teewle ko ci synthèse bi nga xamante ni nii defoon na ko gannaaw bi nga xamante ni colloque bi jeex na. waaw li ñu ciy xaar mooy Sénégal depuis mu ngi am ay gouvernement yoo xamante ni dinañ am ay ministère de la culture Sénégal bokk na ci àddina bi ci réew yu njëkk sos ministère de la culture loolu ci àddina bi donc ministère de la culture bu Sénégal mu ngi sosu après le festival de mondial des arts nègres ñu tuddee ko ministère des affaires culturelles 1966 boobu ñaarool ñetti réew ci àddina bi ñu am ministère de la culture lu ko jiitu amoon na ministère de l' et la culture donc loolu ñu bëri dañu koy réeré mbir kon culture am na fi histoire politique culturelle 60 ans nag dafa jar ñu toog xool ci 60 ans yooyu am nañ fi ñeenti régime Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ñu xool régime bu nekk lan nga def bi ci topp yan jéego la indi lan fan la ñu méngoo fan la ñu am ay rupture loolu mooy benn ñaareel ba loolu soo ko soo ko defee ngir pour xam yan jéego ngay teg ëllëg la du rek pour xam ne lii lii moo fi xewoon parce que baax na nga xam fooy teg sa tànk donc loolu moo tax ñu waxtaan ci ci bilan boobu lu am solo la mais. pour xool pour xàll yoonu ëllëg lay lay doon. nii nag ñu ngi doon def colloque ci diwaanu Fimela doon waxtaanee politique culturelle yi du Sénégal les actes et défis ci diwaanu Fatick moom fii nga xamante ni nii moo ci centre socioculturel bi liñ fi doon def mooy concours performance première édition 14 régions yi nag ñoo si doon jongante ci thème bi nga xamante ne nii Macky Sall les arts et patrimoine ki nga xamante ne mooy Baba Ndiaye ne coordinateur jury yi mi ngi dëkkaat ci bile concours ñu teewlu côté ñëwaat. thème ren bi ki nga xam ne moo jiite woon réew mi fukki atak ñaar te ne day dem te xam nga loolu teraanga la teral ko teraanga doon mais euh, teraluñ ko moom mais dañuy teral képp ku ñu jiite tey tey lijjanti loo xam ne moom la ñëpp bokk te mu jëm ci aada cosaan nga xam ne dina wax ñu fi nekkoon depuis Senghor mais dina waxal tamit ñi war a ñëw donc loolu moo taxoon thème bi euh, duñ ko yemale rek si moom moom Macky Sall parce que Macky Sall nit la mais Macky président dafa doon symbole boo xam ne dafa jiite réew mi ay at buy dem nag duñ ko atte moom de mais dañuy atte kii nar a jiite naka lay lijjantee ado cosaan bi ñëpp bokk ci bokk moomeel lay doon nag du privé mais bokk moomeel mooy loo xam bi ñu ko dajalee ñëpp gis seen bopp donc loolu moo taxoon ñu ne donc manifestation yi mel nii lu am solo la lu am njëriñ la te day day meer réew mi mu jekki-jekki taxaw seet boppam ki ma àndaloon nag ci xibaar yi mais aussi fii nga xamante ne nii moo ci diwaanu euh, Fatick di Cheikh Tidiane seen moom lañu àndal ci liggéey bi di ko gërëm di ko sant mais aussi yéen aussi di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous incha allah bi suba ci beneen édition journal di fes Fesnac